Abdoulaye tey fan la ñuy ànd ak yow centre ville. waaw da leen ak jàmm. Euh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi tey ñëwatinañ ci beneen gox euh, fii ci biir Ndakaaru ci biir centre ville euh, mbedd bi nga xam ne moom la ñuy wax rue Carnot ñu bëgg xam lan moo tax ñu tuddee ko loolu laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk rek ndax am nañ ci xam-xam donc da ñuy topp rek ñu dem laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee. salaamaaleykum Gara. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu eh, ñu bëggoon a xam rek Riu Carno ndax eh, xam nga ko walla non Riu Carno dama koy dégg rek mais maîtriser ma ko waaw. mais xamoo Carno bi moom da koy dégg xamoo kan la. non non xaw ma kan la dëgg yàlla waaw. jërëjëf xam naa ñi ngi koy jaajëfal ñu doxantuwaat rek eh, ñu nekk fii salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen sant yàlla ak mu ñëw moytu. yàgg nga côté yi wala. waaw côté yi de maa ngi fi def plus de vingt ans de plus. Mm-hmm. waaw ngay dégg Rue Carnot ndax xam nga ko waaw Rue Carnot maa ngi koy dégg xam naa rue bi mais xaw ma nag euh, lan moo lan mooy signification bi quoi mm-hmm. lan moo tax Carnot daal xamu ko mais man dégg Carnot rek ak li ñu fi yàgg yëpp waaw waaw li ma fi yàgg-yàgg damay dégg Carnot rek mais xaw ma lan moo tax Carnot bi ñëw quoi grand ça yaa ngi si jàmm laaj ba xam xam nga Riu Carno Carno moom mooy kan ah xam naa Riu Carno mais xam naa Carno ak moom xam la naa ñi ngi koy jaajëfal salaamaaleykum papa ngi la fekk nga toog te xam naa Riu Carno xam naa yàgg nga fi eh, est-ce que xam nga dara ci Riu Carno waaw Riu Carno de man yàgg naa fi waaw yàgg naa fi nag dégg naa ñu naan Ricarno Ricarno mais dégg naa ñu naan ab tubaab lañ ko tuddee woon mais xam nga ñun doolu lañ koo gëstuwul ba xam dañuy dégg mag ñi di wax rek Ricarno Ricarno loolu lañ rek lañ ci xam franchement waaw loolu la xam. xamoon tubaab boobu kan la ak fu mu dëkkoon Carnot ci boppam. non Carnot moom xamoo fu mu dégg naa daal ñu naan Ricarno ab tubaab lañ ko tuddee woon mag ñi di wax xam nga affaire yooyu loolu rek lañ fi dañoo judd fekk ko fi ñu koy wax quoi waaw ba léegi nii waaw. jërëjëf jërëjëf euh, ñi koy jaajëfal xam naa dañuy dem rek euh, laajte koo xam ne dina ci indi ay leeral ci lan moo waral tur bi euh, ñu tuddee ko mbedd bi fii ci centre ville kon dangeen ngeen ñuy topp rek incha allah ñu indi leen ci ay leeral. xam naa comme niñ leen ko waxee rek ci lan moo waral mbedd bi ñu tuddee ko karno dañuy amal waxtaan ak ki nga xam ni moom mooy Ousseynou Gueye di doctorant en histoire. mu andil ñu ci ay leeral xam naa Ousseynou ñu ngi lay nuyu. Carnot dakan na benn homme politique français sa nekk na député nekkoon na ministre à plusieurs fois mi ngi juddu en 1837 à Limoges benn dëkk bu nekk France foofu la juddoo après mu nekk président si atum 1887 ginnaaw bu mu gañewee si deuxième tour premier tour bi sax mu ngi ko bokkoon ak Jules Ferry maintenant en 1800. 87 si la nekk président de la république France mi mii nekk président nag temps colonial temps bu xamante ni temps colonisation la woon donc moom aussi euh, si atum 1894 le 25 juin précisément si lañ ko assassiné foofu si Lyon si benn exposition coloniale bu amoon foofu noonu la chambre de commerce maintenant foofu noonu la ko benn euh, anarchiste bu italien bu ñu tuddee euh, santé Gomerio Caserio moom moo ko moo ko faat foofu noonu. ban lien la am ak euh, Afrique wala sax Sénégal ba tax ñu tuddee ko mbedd boobu. Carnot euh, am na ay lien ak Sénégal euh, benn bu si njëkk mooy bu ñuy defar pont Ndar bi maanaam pont bi nga xamante ni moom mooy pont bi relier Saint-Louis île bi ak Sor. Euh, en 1892 moom moo defoon benn décret bu nga xamante ni euh, moo doon permettre à ce que métropole bi jagleel euh, colonie bi li nga xamante ni mën nañ si defar pont bi. même bu nga xamante ni moom assassiné nañ ko en si ci funérailles yi. am na ay sénégalais yu nga xamante ni invité woon nañ leen bi nga xam ni noon la leeralee rek ci kii nga xam ne moom mooy Carnot nekkoon président ci France ñi assassiné ko ba tax eh, ñu tuddee ko mbedd boobu xam naa dañ koy jaajëfal di jaajëfal ñi doon seetaan di lañ jox dig daje ba beneen incha allah. merci